wa fi kitaabi Nuurayni nekk na ci téere ba ñuy wooyee yaari leer yi anna man qaraa suuratal muzammili naka bépp jaamu yàlla boo xam ne jàng nga suuratu muzammili dafaha llaahu anhu al usra yàlla dina ko fegal mboolem jafe-jafe fii duniya ci àddina wallaaxirati ak ci àllaaxira suratu muzammilu yaari këy dong la yonent képp ko koy faral di jàng yàlla dina la fegal jafe-jafey àddina ak jafe-jafey àllaaxira wa mimma yajuuru risqa bokk na ca la nga xam ne tamit day ñoddewu sa wërsëg muy gaawe egsi ci yow ay ba tey kasratu subhaana laahi wa bi amdihi subhaana laahil azimi yonent bi nee na képp koo xam ne yaa ngi bari looy wax baat yooyu muy subhaana laahi wa bi amdihi subhaana laahil azimi yàlla day ñoddi sa wërsëg muy gaawu egsi ci yow te dina bari lool te dina baax lool te dina barkeel fa innaha naka baat boobu di subhaanallaahi wa bi amdihi subhaanallahi al azimi tasbihul xalaiqi mooy xeetu sàbbaat nga xam ne mbooleem luy mbindeef sunu borom sant na la ko nga di ko ko defal mbindeef mooy lu am jëmm lu ne kon malayka ya nit ña jinne ya garab ya jën ya ndox ya njanaaw ya xar ya bëy ya nag ya mbooleem ba ca gunóor yey naaw ñoom ñépp sunu borom sant na leen ñuy wax baat boobu di subhaanallaahi wa bi am amdihi subhaanallaahi al mi lépp lu am ak ruud am jëmm moo xam garab la moo xam luy déplacé di dox la sunu borom sant na la sàbbaa googu nga di ko sàbbaal sunu borom kon nun nit ñi nañu xam ne garab yii nuy dox di romb ña nga koy sàbbaal sunu borom laa ilaha illallah wa bihaa ci sàbbaa googu sax yar saxoona ca la sunu boroom di leen joxe wërsëgu dund wa yurwaa yonent bi nettali na ne annaha naka sàbbaa googu maa usidat sajjaratun ilaa bi tarkihaa nee na garab goo ñu gor ko ba amo amatuti xob garab goo gis ñu daaneel ko bis boobee ñu ko daaneele da caa waxut sàbbaa googa waaye gépp garab gumu mu doon ñu gor ko mbaa ñu daaneel ko bu dee xëyoon na wax ko doomu aadama du ko gor kenn ko daaneel bu ko fàttee wax moom garab ga mbaa mu bañ koo wax ca la ñuy daggaay xobam ca la ñuy gore ay ceram laa ilaha illallah maa usidat la yonent wax sajaratun duñu dagg genn garab ilaa bi tarkiha tasbiha ndara ju daa bàyyi sàbba googa sëriñ Tuubaa nee na wa minhu bokk na ca njariñ la nga xam ne baax na ci jullit baax ci mboolem xeeti jaam yàlla ya ittaxaasul mi te dina la may ngay amam koom te faqat warada fil hadisi yonent bi wax ko ci hadis yu bari jàppal anna fii kulli saatin yenenti nee na naka bépp gàtt muy bëy wa mbaa xar ma nga yeew ca kër ga sunu boroom def na ca barakatan barke kon yar ak jur ca kër ga baax na hàddis baa ngoog yenenti nee na kenn ku nekk boo ko mënee na nga yar ak jur ca sa kër kon yéen ñiy faral di yar xar yi ci seeni kër yéen ñiy faral di yar bëy yi ca seeni kër mbaa nag ya yéen a ngi jëf lu yenent bi digle te nee na benn bu nekk ca ñoom gàtt yooya yàlla def na ca barke wa nu bokk na ca ya am njariñ te mata xam tasmiyatul di muhammadan nga am doom ju tudd muhammad alayhi salaatu wasalaam nga fexe ba ñu tudde ko sa doom bu dee jigéen nga nga ñaan ko sa borom kër bu dee góor la fexeel ba tudd sa doom muhammad mu ne képp ku am doom ju tudd muhammad aw ahmada mbaa ñu tudde ko ahmada yow moomu am nga lu lay jural barke lu lay jural wërsëg àddina ak alaxira intaha foofa la xadis ba yem ba tey ma ngay wéy ak yow ci lépp luy jural doom aadama jàmm ak njariñ àddina wa alaxira wa fiihi aydan wal hiilatu fi salaamatin min al afaati mu ne ma ngi lay joxoñ nag pexe ya nga xam ne boo ko defee sunu borom musal la ci gàkki-gàkki àddina xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sëriñ tubaa ne yonent bi nee na yal na ko yàlla dolli man salla salaata subhi képp ku julli suba fii jamaahatin ci mbooloo su ma yaskurulaa nga toog fa di tudd yàlla taxalaa yàlla may aji kowe ata tat luha ba mu fenk asamsu jant ba suma salla arbaha rakkahatin nga daal di jóg julliwaat yeneen ñeenti rakka yow mi def loolu laa yadruhu xamal ne sunu borom nee na jaam boobu du koy lor mukk say un dara min xalqillahi ci mbindee fi yàlla yi taxalaakay aju kawe ah yéen ca jàkka ja nag ginnaaw jullik suba ngeen di wasifa ba jant fenk tuubaane yenente ba lii moo leen cay xaar na nu yàlla boole yiw wi wasalaamualeykum